Touba Khayra. seen menuiserie tapisserie Touba Khayra seen jaaxle jeex na jëm ci wàllub jënd ak jaay ay meubles. ay salon ay chambre à coucher ay fauteuil ay coussin pour auto yanji ba yegg ci lool sax yamu na ca soo bëggee yee salaat wala defar sa salon dawal gaaw seeti menuiserie tapisserie Touba Khayra. Touba Khayra. am na itam Touba Xayra tissu xeetu tissu yépp la ñuy jaay ay brodé bazin voile wax filafil jesner bazin brodé yéen ñi bëgg a sañse fël-fëlaale ba fu ngeen romb ñépp geexsu leen daw leen gaaw seeti ñu mën ngeen ñoo fekk Kër Massar wala tournoi Serigne Assane ca Géejawaay mën ngeen ñoowoo itam ci 77 713 94 57 77 713 94 57 wala 76 400 490 72 12 76 490 72 12. waaw non jëlal kii jël ko ngeen kii ba pare après. bara bara ngeen kii liggéey bras ba tuuti après yaa ngeen liggéey bras ba après mu mu soog a jël kii. Eh, góor a kaay góor voilà waaw loolu la waaw voilà.

waaw waaw oh, léegi góoram. non baax na baax na. lu desar. bi rek moo desan su kenn taxaw ni na maa war taxaw fii Pambaay song. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Allez, vite sama drapeau moo fi njëkk a nekk victoire dañu demee ko bëri moo faral. Thank you. daa mën a bëri daa mën a bëri fii entraînement la amul ree amul dara lan ngeen non amul amul amul amul amul bu tàngee waaw loolu la demoon lu ngeen di ree moom day yomb. tey mer moom wax dëgg de. béykat bi mooy contact moom làmb lañ ko jàpp. kàkku mbay ci laa bëggoon ñu jël mooy bëre kan la mën a daa mën a bëre rek.

waaw man de tàng ba pare day tëdd. ah bëri nañu ko ne. mooy bi nekk daa mën a bëri na jar. daa tax ñoom rek daa mos ñëw taxul ñoom tey. ah Pape 1 la turandoom la. mais Ndiago man soxla woon naa contact am tey de. o oh, xaaral di jàll oh jaarale ba dama dama doxal waaw doxal def fële ba ñëw doxal def. dafa bàyyi si biir loxo la war a yor rek. lii du jël lii du jël lii du jël. bu doon daanu daanu daayoo.